jërëjëf Guèye si Kambal rek buy xuloo sax lay ree yéen a koñ mais boo xool kii kii kii nga koy gisee nii rek kii bàyyi ko rek ana sama mbaxane bi sama mbaxane bi kii ah ñëw. léegi nag ñu seeti Madi Kenya Madi Kenya nag li muy ñëw mooy xale yi ak gaal gi waaye tamit actualité politique bi remaniement bi na la ko dundee ñu seeti Madi Kenya. acca Adja Khoudia. ah so sama mbax jërëjëf waa gis nga <laughs> yàkkamti ñëw ci émission bi rek na ngeen def alhamdulilah sëfër bi ma ko jox waaw sëfër go sëfër bi la sànq la ma ka wax ne ma sama xam ne yaa bàyyi ci ginnaaw oto bi na ngeen def nag yéen a ngi ci jàmm alhamdulilah macha allah jërëjëf jërëjëf mbokk yi ginnaaw ba la santate yàlla julli ci yonent bi tey nag dana am mbégte am contentement invité sénégalais bu mag bi africain bu mag bi ndar ndar bi wax dëgg yàlla suma plateau bi maître maître biscuit <laughs> damaa bëgg biscuit. maître Madické Niang maa ngi lay nuyu. <laughs> waaw maa ngi lay fay di la gërëm di la sant wax dëgg yàlla di am mbégte ak contentement bu mag di euh, sant yàlla bu baax ak yonent bi di ñaanal sëñ Mountakha Bassirou ba xalifa général ku mu yàlla fi yàgg te wér Adja Khoudia tamit yàlla fi yàgg te wér ak samay dëkkandoo ak sama waa koñ ak ñi ma loon classe ñëpp yàlla yàlla defal jàmm. Eh, waay ndaw jërëjëf nuyu na ay mbokkam nii nooy dëkkandoom nuyu na sax ba nuyu ñi nga xamante ni ñoom la loon classe waaye maître Madické Niang dafa am leen rek lu ñu bëgg waxtaan ak yow muy ñaari tomb bi ci njëkk mooy xale yi nga xamante nii actuellement du ñu jug jug goo xamante ni nii maar di tali sumb géej gi nan nga jàngatee loolu. Caamaas dafa am ñaari wax yoo xam ne waxoon naa ko fii waaye nit ñi dañ ko bàyyiwul xel. dañ ko bàyyiwul xel. gis nga gouvernement bu fekkee dafa bëgg xeex li nga xam ne moom mooy mbënn mi. mbënn mi ñaari solution rek la war a def. Mhm. mooy état Sénégal daal de collaborer nga xam ne ñoom ñooy union européenne. union européenne. ku ci mel ne dëkk bi nga xam ne mooy Espagne fa xale yi di bënnee. Italie fala la xale yi di bënnee. Mm-hmm. la waaye buntu bënn bi yëpp Espagne la ku ci eh. xas ba dem Espagne jël nga train dugg Italie. dëgg la waaye léegi nag bu ñu ko defee nag léegi da état Sénégal li mu war a def mooy former xale yi. former xale yi. ci formation boo xam ne dañu koy def ci feeraay. ci feeraay am na ñoo xam ne ci feeraay dañuy dund. dëgg na ñoo xam ne dañuy dund ci li nga xam ne mooy artisan. artisan. kon menuisier bi nga xam ne dafa nekk ci koñ bi di daaj baam. war a armoire am ak lalam te gisul ku la ko armoire ñaata lal ñaata bu yàggee lu muy def. bi lay bu yàggee lambay ñaaw. kon na état Sénégal tëj buntu yi tëj frontière yi matériel yi nga xam ne mooy dugub bitim réew di jóge Dubaï ak Chine te menuisier yi mën ko defar ba mu tax ba ndaŋ ba ngay nelaw di gént wax dëgg yàlla kooku mën nañ ko a menuisier du quartier bi jox li nga xam ne moom mooy marché. ba table ba école yi. bu daal bu ma la déggee mooy daal nanu def dañu delluwaat buum ca mbay booba. ca mbay booba def consommer local. consommer local quartier bu nekk ñu daal di ñëw ASC bu nekk ñu xool recensé ne koñ bi ñeenti menuisier ñoo fi nekk war a juróomi menuisier amul benn école boo xam ne da nga def école table banc di ko commandé feneen lu dul ci menuisier nekk ca koñ. dëgg dëgg la. communes yi nga xam ne moom mooy mairie commune yi bu Grand Dakar bu nekk. bu école boo soxlaa baay ñoo koy defar. Mhm. bu ñu soxlaa armoire ñoo koy defar. dëgg la dispensaire boobu lu ñu soxla ci matériel immobilier ñoo koy defar. dëgg la kon loolu bu ñu ko defee kon communes yi rek wax dëgg yàlla semence bi dana wàññeeku te métier dana am. dëgg la bu dee mécanicien ga lép loo xam ne foofu ci mécanique la bu dem ci mairie bi. wala mu jëm ci loo xam ne dañ ko soxla foofu dañ koy utee ñoom la ñu jox marché bi fu ñu séddale marché yi ci commune commune yi daal di jox ci chef de quartier quartier yi ñëw ci famille kenn ku nekk mën a émerger ci sa secteur dëgg la dëgg la kenn wax dëgg yàlla war ngaa mën a émerger ci sa secteur waaye maître Madické Niang wax dëgg yàlla xam nga ne temps bi sax doonoo xaw a xoj waaye am na ci loo xam ne mënuñu ko ñàkk bañ a waxtaan actuellement gis nañu langue politique bi jëmbaajoo jëmbaajoo woote gi di mel ni tuleeg Mali am ci ñoo xam ne xalaatu loon ci àdduna ba xam dinañu dem waaye funtu lu bëri fàq noonu daw wuti gouvernement bi nan nga jàngatee lool. caamaas gouvernement maa ci ci manqué. moo ci moo ci manqué rek nga xam ne 2000 2000 ñëwaat na. nga ni. Ablaye Wade bu nekkoon ci kaw. waaw ma dikk ñaa nekk ci biir ñu nekkoon ci gouvernement bi rek ñoo ñëwaat. laa ilaaha illallaah xoolal ñàngat gi métti ma jëkk daa def. xoolal bu baax la ma la wax rek. ba mu ko Idrissa Seck ma nga ca ma nga ca. ana Omar Sarr. ma nga ca. <laughs> ana Yankoba Traoré. ma nga ca ba Jaxate ma nga ca. waaw ah, xoolal rek léegi. la Ablaye Wade dugg bu ci ma dikkee duggoon. Ablaye Wade dugg. Samuel Sarr dugg. waaw. Babacar Gueye gi <laughs> dugg. waaw. Ah, <laughs> keneen na keneen Malick Gakou dugg bu yàggee rek da ngay gis ne la la fa nekkoon mooy ñëwaat rek. dëgg la la fi nekkoon mooy ñëwaat waaye est-ce que dugg yi gars yi dugg bett la de. parce que le monde libéraux ñoom ñoo dajawaat rek li libéraux yi ñoo toogaat xam naa dajalewaat rek parce que président Macky Sall euh, président Ablaye Wade moo ko jàngal politique moo ko tàggat ci politique bu baax xamal ko li nga xam ne moom mooy euh, jokkalante ak defalante parce que Macky Sall tamit bu ko xeeb ku nganda ku mun boo xam ne fa nekkoon nga toj ko rocc ci Boubacar Camara génn ko ñu ne déet na waaye nga dem PS toj ko xar ko ñaar ñii ànd ak Khalifa Sall ñii ànd ak xoolal rek Macky Sall esprit bi muy demee Macky Sall koo xam ne bu doon film kabooy la dañ naan dañ naan kabooy la ci biir biir film bi. parce que kabooy affaire <laughs> Macky Sall Macky bu doon film dama baal de président la waaye bandi bu garaaw la ciy doon. wallaay laay li parce que dafay nekk koo xam ne rôle yi muy joué moom rôle nante Macky Sall la ci li nga xam ne mooy politique. pionnier kenn xalaatul woon ne mun naa tas ay coalition dajale leen ba pare rocc fu nekk kenn foofu yëngu mu daal di ñooñu dégg leen seen wet. nante la politique la. d' accord mais yaakaar nga ni ci biir politique bi ñii nga xamante ne woo ne leen ba 2024 yaakaar ne mën nañoo yëngal réew mi. déedéet poli Idrissa Seck li mu def noonu xam nga xam nga politique nga nangu loo xam ne da nga koy nangu tey. Mhm. politique warut a rafet. warut a rafet nii la da nga koy def tey nga war a ànd suba nga ànd ak nangu. yaaka nangu da koy def. dëgg la na nga def ko ci ngor. Mhm. boo xam ne wax dëgg yàlla ëllëg da ngay sàmm sa diggante ak li nga xam ne mooy nga war a sa wë sa wëla waaye politique la boo ci dugg da naan lu ne laa ci dégg man maa ci dugg lu ne laa ci def mu ne mel ne rek ku dàq pour dem armée il est prêt pour ne suba sax mën naa dee. dëgg la politique noonu la rek engagement la rek. d'accord maître kooku ñu invité woon mooy maître Madické Niang di ko xamante ni kenn dootu ko présenté ci réew mi waaye maître est-ce que yaakaar nga ni sa dem. mën naa leer wala sa toog mën naa leer xam nga ne man du ma dugg ci gouvernement boo xam ne wax dëgg yàlla su ma ci doon dugg dugg naa ci bu yàgg waaye damay wax rek ne boo xoolee tey actuellement ni namuma Ablaye Wade bu ci nekkoon rek ci kaw nga xam ne ne presque ñoom la ana Macky Sall mu ngi ci gouvernement bi mi ngi ci gouvernement bi ana Idriss Seck mi ngi ci gouvernement bi ana ana ana Yankoba ma nga ca gouvernement ba <laughs> ana ana ana ana ana Omar Sarr ma nga ca dem na kon léegi bu fekkee ne da nga am Samuel Sarr bu ñëwee mhm. Boubacar Camara ñëw mhm. <laughs> Babacar Gueye ñëw dëgg la ana moom Diagne Fada ma nga ca ma nga ca dem na xale bi jox ko Abeta mooy euh, Ablaye Sow. Ablaye Sow Ablaye Wade la nekkoon. lay kon boo xoolee rek waa PDS ñoo ñëwaat ci beneen formule boo xam ne APR bu PDS la. APR bu PDS la loolu rek laa jërëjëf kooku mooy maître mooy mooy kooku mooy maître ana la ngay tàggoo. li may tàggoo mooy xam nga dama <laughs> bañu ma ko waaye xam nga suñ mu taxaa dafa ne mën nga génne sa làng ci politique bi am na lu gën a ëpp solo politique loo xam ne moo may xaar te ci loolu laa nekk man dugg ma génn ma génn ma dugg ma maa ngi ci diggante bi. Eh, yaa ngi <laughs> ci diggante bi parce que ba tey damay indi sama xam-xam ci politique ndax analyse bi mu wax noonu loolu laa mën a xam te loolu laa ci jàngal dugguma génnuma génnuma dugguma laa ilaaha ma dugguma génnuma génnuma dugguma lool loolu loolu maître Madické Niang indil waaye maître Madické Niang yow gëj gaa taxaw ci baro de waa gëj naa taxaw ci baro waaye fan yii dinaa delluwaat baro. ah waaw waxoon naa la procès Kouthia bi dañ ko renvoyé woon. ah dañ ko renvoyé woon mooy ceebu waale président Macky Sall ba léegi na koo fay boobu léegi mu ngi wàcc di yéegal di yéegal di wàcc te Kouthia war nga ko fay xaalisam président Macky Sall ci yàlla fay Kouthia xaalisam bi wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla waaye fay xaalisam bi. waay waay dimbali nit waay waay dimbali nit